salaamaaleykum man la Cheikh Talif maa ngi nii ci Palme de Mallorca Espagne euh, nekk ku ñuy wax Aina Aina nag dafa gis euh, vidéo boo xam ne mi Mia Guissé comme dafay bëgg Mia Guissé di ko seetaan Mia Guissé nag dafa dem jébbalu ji sëñ Jili Fata Falilu mu gis siyaar bi sëñ Jili Fata Aina ne si day jébbalu si. jébbalu sëñ Falilu. sëñ Jili Fata Falilu. wax ko jébbal naa la sama bopp. waa ko jàkkaarloo ak xale naa la sama bopp. naa loo ma digal ma def. loo ma digal ma def. loo ma tere ma bàyyi. loo ma tere ma bàyyi. doy nga ma. doy la. te doyloo naa la. sëñ Jili sëñ Jili Mbàkke sëñ Fata Fata Falilu maa ngi lay siyaar di sàkku ñaan di sàkku nga bàyyi ma xel di sàkku kañ nga xel sa taalibe man ay naa sa taalibe sa taalibe waaw man ay naa maay woote le samedi le 9 novembre samedi le 9 novembre sábado el 9 de noviembre mhm. répétez fàttaliku sëñ Fàllu Día de bendición. Día de bendición. De Serigne Falilou. De Serigne Falilou. mooy maamam. mooy maamam. su abuelo. kon mi yaa gisee. kon mi yaa gisee. yow ak Aina. Aina. yéen a bokk Serigne. yéen a bokk Serigne. sëñ Jili Fata. sëñ Jili Fata. mooy sunu Serigne. mooy sunu Serigne. kontaan na. kontaan na Mbacke yàgg fi tawit. ok jàkkaarloo. jërëjëf wax jërëjëf. jërëjëf alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla. jërëjëf ci tegtal sant yàlla ok.